mbokki assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginaaw bi ñu sante yalla subhanahu wa taala julli ci sang bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant yalla mi nga xam ni moo jël mbaax ak yiw mbaax ak yiw wi nga xam ni mooy jariñ jullit bi ci àdduna di ko jariñ ci àllaaxira mbaax googu ak yiw woowu moom la yàlla jël def ko ci shahru ramadan al mubaarak moo tax jullit bu nekk war na cee defaru war naa defaru ci jikkoom war naa defar ruuxam waaye war naa defaru itam ci bakkenam ndax jaamu yàlla yi nga xam ni moom lañu yàlla subhaanahu wa teg su ko jaam bi sellalee yàlla nangu ko dana jeexital ci jaam bi boo demee ci julli li tax yàlla santuñu ko yàlla nee na inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar yàlla nee na julli bu jaaree yoon julli bu sellee neena dina dema dema dem ba jaam bi koy def dootul defati lu bon dootu ko waxati lépp loo xam ni conscience bu tranquille bañ na ko jaam bi dootu ko defati ndax inna salaata tanha an il fahshaai munkar boo ñëwee ci azakaat muy azaka jaamu yàlla la goo xam ne li tax yàlla sant nu ko mooy dana tax doo bëggee ci sa am am dana tax doo nay ci sa am-am ndax nay ñaar la am na nayug jikko waaye am na nayug poos kon boo gisee yàlla chargé nu jaamu yàlla googu mooy dafay defar ci yow benn jikko boo xam ni danga ko war a raxas ci sa bopp ba mu set mooy bëgge ak fuqule ak nay moo tax yàlla wax ni xus min amwalihim sadaqatan tax tutahhiruhum wa tuzakkihim boo ñëwee ci koor li tax yàlla santuñu ko mooy bu ñu wooree sellal koor gi war nañ caa décrocher polom bu ñuy wax ak taqwa muy ragal yàlla ragal yàlla ci jëf ragal yàlla ci jëflante ragal yàlla ci wax ragal yàlla soo wéetee ragal yàlla soo wéttilikoo moo tax yàlla wax ni laalakum tattaqoon mu ni boo leen wooree jaareel koor gi yoon sellal ko mu ni boo leen ca bàyyikoo nag di ca décroché nee na médaille bu ñuy wax at taqwa muy ragal yàlla nga ñëw ci aj mu doon jaamu yàlla gu am solo jaamu yàlla googu li ñu ci yàlla di jàngal yàlla dafay wone melow bis pénc ni jaam yépp di yamoo ci seen kanamu boroom ndax boo demee màkka di aj mënoo xam kii milliard la am mënoo xam ni kii million la mënoo xam ne kii baadoola la mënoo xam ne kii du baadoola ñoom ñépp ñooy bokk genn col taxaw ci kanamu boroomam ñoom ñépp dañuy taxaw ci kanamu seen borom parce que ñoo yemoo waaw moo tax yàlla nag ni jaamu yàlla googu boo ca nekkee nee na na nga fexe fexe ba wax bu jàgg bul ko fa wax bul fa werante bul fa wax waxi ngoro moo tax mu ne laa rafasa wala fusuqa wala jidaala fil xajj kon yooyu nag ay jaamu yàlla la yoo xam ni yàlla subhaanahu wa moo ñu ko chargé ca bu ci nekk nag bu ko jullit bi sellalee dana am effet wala njeexital boo xamante ni dina feeñ ci moom loolu moo tax yàlla subhaanahu wa taala sant nu ko kon nañu xam ni jaamu yàlla nag amul retraite ndax yàlla nee na wa'bud rabbaka xatta yaatiyaka al yaqin jaamu yàlla danga cay nekk danga cay nekk ba dugg bàmmeel moo gën a wóor moo tax amul retraité kon mbokk yi nañu xam ni weeru koor jaamu yàlla gu màgg la weeru koor yiw wu màgg la weeru koor ay ngëneel yu màgg la te yàlla subhaanahu wa nag bëgg na jaam yi mu ko sant buñ ca bàyyikoo rekk mu am lu mu jur ci ñoom jur ko ci seen jikko jur ko ci seen ruux jur ko ci seen bakken waaye jur ko ci seen yaram yal nañ ko yàlla defal kon bu ko defee ñu jox leen naafil ak tey gii muy dimanche mu ni sopp nañu ko julli ñeenti ràkka ràkka bu ci nekk nee na dangay jàng faatiha jàng isaa jaa nasrullahi juróomi yoon jàng qul ahad juróomi yoon nee na boo ko jullee xafarallahu zunubahu kullaha nee na yàlla jéggal na la sa bàkkaar yépp nee boo ko jullee wa yaamuru malakaani yaktubaani lahu alxasanaat wa yamxaani lahu asayiaat yàlla dana la booleeg ñaari malaaka benn malaaka bi di la bindal say tuyaaba di ko ful nag waaye beneen malaaka bi daf lay effacer say ñaaw téef ila sanatil qaabila ba at mii di ñëw insha allah muy shahru ramadan yal nañ fi fekk ñun ñépp mu ni boo ko jullee wa in maata maata shahidan nee na bis boo génnee àdduna nag dangay bokk ci mun a min a shuhada maanaam dangay martir dangay shahid mu ni wa yakunu qabruhu qabra shahid mu ni sa bàmmeel day doon bàmmeel ku martir maanaam ku martir koo xamante ni maanaam dafay xeex ci koosu islaam ba bakkanam des fa mu ni boo ko julee wa yaqumu yowmal qiyaama nee na bis pénc ëllëg boo dekkee nee na bay na yadayhi nuurun nee na sa kanam nee na dafa am leer goo xamante nii moo fay bale yal nañ ko yàlla defal nee na wa ala siraat kal barqi laamia nee na booy jéggi siraat nag yaay raw ak melxat kon mbokk yi naafile gaa ngoogu am na solo loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax waaye rawatina ci fukki fan yii nga xamante ni moo mujj ci koor gi muy fukki fan yoo xam ni ci la ñuy goreel jaam ci sawara yal nañ ko yàlla defal